aussi mu reprendre xaat euh, qu'est-ce que ça signifie politique jeunesse su euh, réew yi la euh, l'Afrique ban ban ban ban gis-gis réellement nga ci par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ñuy gouverner. man li may wax rek je condamne l'Europe l'Amérique les États-Unis le Canada les pays développés en quelque sorte. lu tax ma leen di condamner mooy tey ku am passeport yore passeport ngaa dem fu la neex. Mhm. tey bu fekkoon ne les frontières sont ouvertes ku nekk di dem fu la neex je pense que lii du am. te ñoom ñoo njëkkee. maanaam yore Sénégal di wër àdduna bi. Mm. te boobu amuñu benn contrainte. c'est vrai man je condamne les pays développés que nañ ubbi frontières yi ku am paas bëgg a dem mën a dem.